dafa am benn maam Fallou wax mënul dafa jël këram ci Touba moom suñu borom toj ko dafa jàkk fajar jot rek sëñ bi wàllu xaadim taam sëñ Abdou Xaadim ñëw nañ ci julli si sa jàkka ja waaye sëñ Moodu dëkk ca saal ba ma ànd ak moom ci fajar gi mu tabbi ca biir jàkka ja ndaka mu sëlmal mu ne ah sëñ Fall ku dugg ci sa saal bi xeeb lool waaye ba demee ci jàkka ji naw la taxaw rek na taxaw rek na taxaw rek. bi lay sa këram. très bien taxawal rek. di ko def jàkka booba fanweeri at yi toppul. naaj bi dëgg la dëgg la. Mbakke lii la du kenn kenn kenn kenn du kenn Cheikh Mouhamad. dëgg la Cheikh Abdou Khadir yàlla. Cheikh Abdou Khadir Serigne Touba. dëgg la waay Cheikh Abdou Khadir Rasulullah. Cheikh Abdou Khadir waxtu. Cheikh Baye yi fi nekk yi man la. Cheikh Abdou Khadir yi fi jógee yi man la. balal ma ci fekk jumaa bi l'islam jëmul Cheikh Abdou Khadir Sénégal yëpp sëriñ bi ñu xaajatee ku mu jur yàlla yéen ñu koy lii kenn ci sa bàyyi lan la ñu wut sañu xol ba mu tee biir yu wut rek ci baax ci biir yu fal waxtu sa bàyyi laaj sa bàyyi laaj ñu déglu si sa الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وصلى الله على محمد الأمين وهو أشرف المرسلين وما أرسل إلا رحمة للعالمين وقد ختم النبيين وساد الأولين والآخرين وعلى أهل بيته الأتقين الأكرمين المذهب عنهم الرجس المطهرين ورضي الله عن أصحابه المجاهدين والغلاظ الشداد على الكفار والمنافقين السابقين الأولين من المهاجرين وأنصار الدين والذين اتبعوهم بإحسان من الرضوانيين ومن غيرهم من الذين جاءوا من بعدهم وانتهجوا نهجهم مهبين في الله لهم مستغفرين لهم ولأنفسهم إلى يوم الدين bala may dem ci li ma di doon sëñ bi maa ngi delloo nuyoo sama rak Cheikh Mouhamadou Bachir wax na ci man wax rafet ñaanal na ma waaye dama jàpp ne wax ju rafet ji ci moom la kenn ku ne la ne ci moom la mën a joxe waaye man ko ma ñaan gi may ñaanal it maa ngi ñaan yàlla boole ñu ko te yàlla sàmm ko ba liggéey bii ñu ko jox mu yore ko ca jamono yi Cheikh Mamadou Lamine Bara jaar ci Cheikh Sidi Muxtaar bay seen mu taxaa yàlla defal ko ci ndam gën ko cee defal ndam sax lañu war a wax te waaye jàpp naa am na ci ndam waaw miin mbacc miin yi yéen mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Mouhamadul Muntaxa alxalifatil aami lil muridiya xafidahu llahu wa raa di leen jottali ci ndigalam kàddu yii di ko tàmbalee sant leen ci seen taxawaay ak seen pastéef ci bis bii muy fàttali julli gi sëriñ mag julli woon ci géej gi nu war cee jànge lu bari te li ci jiitu ni ko Seex Basiir waxe léegi rek di lu am di am solo julli ak fonk gi ko sëriñ mag bi fonkoon bi ictibaariha ahamma arkaan al islaam wa awwala ma yusalu anhu al abdu yowma al qiyaama jàppe ko ponk lislaam bi ëpp solo tey li nga xam ne ni mooy lañ moom lañ njëkk a jaam bi yowmal qiyaama julli nag borom bi nee na moom mi ko farataal ci nun te lu ci nun lu ne suñu njëriñul addinaa ngi ci lool alaaxira waxi na ko nee na tanha anil fahshaa'i wal munkar te mooy day dox diggante jaam bi ak ñaawteef kon nag bu ñuy julli ba noppi ay ñaawteef tasaaroo ci suñ biir war na noo xalaat seet ñaar yi lan moo ci suñ mbir benn julliwuñ wala nii jullee duñu boobaa danañ gis ne nii jullee duñu mooy li am waaye noo ngi julli ñu néew ci nun ñoo dul julli kenn ku nag ak anam ga ak julleem matade ci loolu sëriñ bi nee na nanuy góorgóorlu ci julli te di ko jox ak xam yépp ndax mu mën a dox suñu diggante ak ñaawteef li ñu dégg nag ci réew mi ci xeeti ñaawteef bari na lool te am na ci yoo xam ne taxoon nañ yàlla alak ay xeet ci yiru jiitu bokk na ca xaw mu am na it ñoo xam ne seen yitte mooy di wër ñaaw ngir siiwal loolu bokk ci seen bànneex àddina yi gën a mag ñooñu itam nañ xam ne yàlla tëkku na leen ndax moo wax ne inna alladina yuhibbuuna an tachia alfahishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axirati wa antum la taalamuun gis nga tëkku bi yëmul ci alaxira rek sax lahum adabun alimun fi dunya wal axira ñi ñaaw tiif di séew di siiw mbugal mu metti ci àddina ak ci alaxira mi ngi leen di xaar te faw ñu daje ak moom siiwal ñaaw téef nag yaatal jëfe ko tàbbi ci waaye fexe bañ di ko waxtaane ñi ko yëgul woon yëpp it ci lu ci nekk yàlla bañ na ko tëkkoo ni ci lu jëkkul yaddal ka koy def bamba ko boo ko mënee te bu ko siiwal bu ko bàyyee tuub ko tuub ko sell ko bañ caa dellu giiru dundam aw yiw rekk cay topp yàlla ñu yem ci faral ko la jékkul di ñaateef waaye da ci boole soppil ko ko ay yiw mu bokk ci ñim naan fa ulaika yubaddilu llahu sayiaatihim xasanaat sëñ baa ngi soññi ñëpp ñu gën a farlu ci taxawu njaboot bi jàngal yar leen te lépp diina lal ten xam ne tënku ci diina moom rek moo nu mën a musal te sëriñ bu mag bii tax nu daje fii lu ko daloon ci diggam ak tubaab bi ak ñaandoon ak tubaab bi bëggoon sàmm diineem rek moo ko ko teg kon nan mooy ci diine ji li naatasim bi hablillahi jamian wala natafarraq kenn góorgóorlu te xam ne noon yi bari nañ tere ay pexe lool waaye ñéppay naax saay ci kàttanu yàlla yuriduuna li yutfiu nuura allahi bi afwaahihim wallahu mutimmu nuurahu walaw kariha alkaafiruun loolu mi nga ko ci suuratu saf ci saaru saf ci saaru tawbati mu ne yuriduuna ay yutfiu nuura allahi bi afwaahihim ay yutfiu badalan min li yutfiu teg ca ne wa yaba allahu illa an yutimma nuurahu mu wuutu wallahu mutimmu nuurahu fu ci nekk nag yàlla weesul rek di ci fedd li ne yahuud yi ak nasaraan yi dañoo bëgg a wax ba fay leeram bi muy alxuraan ak li alxuraan woote jëm ci ci àtte bëgg ñi ne ci kaw suuf tënku ci di ci àtte woo ni ñu doxalee ci seen diggante ak seen boroom ak ci seen diggante ak seeni moroom ngir mën a am tax ak àddina ak bu àllaaxira ñu bëgg a wax nag ko fay ko waaye yàlla nee na du nangu lu dul leeram jolli ak luñ ko bañ-bañ lil asaf réew jullit yi li bari bari néew na ñu ciy attewoo lislaam te ñu néew ya koy attewoo it duñ ko attewoo mii a feel wi ak ak jàng da ci am ci nar seeni pexe na naax saa yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wax na ci noon na diine ji dana egg fépp fu guddi ak bëccëg egg dugg ci kër yépp ci nii mbaa ci nee ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بظل أو بظل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر ñàkk a yàkkamti di yàlla ñàkk yàkkamti mbir yi dikkagul ngir ak mën a muñam day tax ba ñu bari di ko jàppe ay wax rek waaye saa yàlla dikkee ñëpp danañ xam ne dikk na subhaanahu wa tabaraka wa ma di ko ñaan nag mu def jàmm ci réew mi te law ba egg Middle East ak Sharqul Awsat fa nga xam ne jàmm koy ñu lool ak génn ci réew jullit yépp ak fu jullit nekk li may jeexale nag mooy baalu ak ñépp na ma koy faral waxe ju ma yëgul ju yàgg ak ju bees bu mag ak ju ndaw boole kook di baal ñépp ak moom lum tuuti tuuti jërul xel bari na lool luy dalub jaam du xam fenn fu mu koy saafara wala am lu rëy lu mu gëm ne ko am ba jege koo am lool ci aada ñàkk ko ba faw te du xam ne ak moo ko ko teg moom mi dara dal wala moo ko ko xañ moom mi amul li mu maa ngi balu ñëpp tey balu ñëpp tey tëje ñaan bi di ko di gu lool te jóge ci sëriñ bu mag bi ñu bari yàgg koo dégg mooy wajaal qulubana ala tawadudi bila tanazui wala taxaasudi wala taxaasumi wala tadaaburi wala tabaagudi wala tanaafuri xatta nasira wa muminina muxlisina saalihin واغفر لنا وعافنا بعافية آمين تكون في الدارين خير عافية واهد وحط وكفنا عن monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee ak tàngaay fii nii. waaw. monsieur Ba na nga def. metti na. xam naa da nga sonn. loolu moo tax nag ma indil la. verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi verre bi nga xamante ni soo ko defee sa bâtiment du mos a tànk te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii voilà verre bii nag moo la sonal verre moo nekk sama bâtiment bi yëpp tollu day lëndëm dafay tàng. te am nañ climatisation mais ça ne va pas ba tey doxul. oui loolu. léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15.